da ngay bokk ci ñuy la dissolution de Pastef l'incarcération de de de Ousmane Sonko. nit kenn du ko yéene loo xamante ni baaxul man dem naa ci ñu bari ñoo xamante ni dañoo jege Ousmane Sonko depuis bu yàgg na leen wax leen ko na moytu lii ak lii ak lii ak lii mi ngi agité wu am na lu bëri loo xam ne moom si boppam sax da ko umpale par rapport ak l'état sa état kenn du xeex ak moom boo taxawee si couloir de la justice ni ma ko expliquer nga xam ne da ngay jàpp ne Macky Sall alors que du moom c'est beaucoup plus compliqué que donc aujourd'hui c'est pas Macky Sall qui agit. Hmm? même si c'est lui qui prend les décrets euh, de, dissolution même si c'est le euh, parquet qui qui qui incarcère. Mhm. baatu état boobu noonu. état boobu soo ko jëlee c'est baatu état boobu soo ko jëlee nga tas ko. mais da ngay gis ne que moo tax ñuy wax le chef de l'état man wax naa plusieurs fois ne Macky Sall c'est le président de la République mais le chef de l'état ak l'état bokkuñu il n'est pas l'état moo tax moom day def li mu war a def il est le lan moo tax nag mu nekk chef de l'état boobu. parce que état bu taxawee dafa am lu ñuy wax la forme d' incarnation unique forme d' unique boobu c' physique day wàcc ci benn doomu aadama léegi doomu aadama boobu dafa am lu ñuy wax des formes d' expression forme d' expression boobu noonu moo indi ay magistrature armée police gendarmerie ils sont au nombre de sept après forme d' bi après ngay gis les formes de représentation ci ngay gisee nag institution yi yëpp originellement fan lañ jógee c'est ça le problème moo tax man la appareil bi la ñu dul tas di ko expliquer nit yi mais suñ ko doon expliquer di nga xam ne kii ñëw par voie électorale ba ñu fal ko opposé wul comme tu mais amal foo yam ak moom